Ablaye Ndiaye nee mi ngi naan wax mbooloo mi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ne mi ngi nuyu ñëpp ne di jiital ci nuyoo bi nag Mawlaay Abdoul Aziz Mbaye di ci teg Abdoul Aziz Aale Ndiaye di ci teg frère yi nga xam ni ñoom la ñu fekk ci kër gi Ablaye Ndiaye sama turando ak sërëm yi toog wali ñoom wali njaay ak ñëpp ak ñoom baay ak masata yom ñëpp ne yaayam Adja Khoudia Diop moom it ñu ngi koy nuyu ne di nuyu abi mbeng mii ñu fi fekk bu sëriñ Babacar Si ne nuyu imam Pape Diop sunu mbokk di suñu wóllëre bopp ne di nuyu ñi ni fi fekk ñëpp ne di sant vie kanit ci témoignage yi mu def léegi Ablaye ne dañu ñëwoon rek dox mbokk ñëw ndokkeel sa Mawlaay Abdoul Aziz Ndiaye ñëw félicité ko ñëw sant ko ci njàmbaaram ñëw ngir ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko aar ko ne loo man ren Aziz Ablaye njaay nee na yàlla nga mën déwén lu ko ëpp ne li nga def dafa rëy de ndax koo yéenewul doo ko defal loolu de ndax yàgg naa gàmmu nag yàgg naa jënd ay nagit ci gàmmu di ko joxe waaye bu demee ba yow Aziz Ndiaye nga am benn yërmande bii ci man yëkkati sa téléphone bopp woo ma ni ma Ablaye li nga gars yi di jaayee nag fii ci Tivaouane dafay cher wax ma lim bi nga bëgg ci ay nag ma jëndaaleel la ko ca daara nee na ma jox ko nag faveur ni ko yow jëfal lu neex nee mu def ko ci defin bu rafet nee na definu yéene la ko Aziz defee ndax bu nag yi ñëwoon ma ne ah Aziz daal man daal li ma xaar gisuma ko waaye nag yi da nga leen a dàq ñu ñëw ma gëm ni man la bu ma demaloon sama bopp lii nga may indil du ko mën a indil sama bopp kon loole dafa rëy Aziz ci man lool ne te yemoo ci loolu nag keroog ci guddi dafa ànd ak kenn ñëw sama kër ay une heure du matin benn waay nee ñiy defar cocotier yi nekk sama buntu kër nee na moom moo defaral Aziz mii cocotier yi ci buntu këram mu ne ma waaye Ablaye cocotier yooyu boo ko defee sa buntu kër yow dina rafet de mooy cocotier yanu bàyyi léegi sama buntu kër kon loolu koo yéenewul doo ko defal loolu nag nee dama ñëw rek pour sant Aziz pour ñaanal ko yàlla ndax li may dund man ci xadara Seydi Hadj Malick gëm naa ni loolu rek laa gis Njaay di dund du dara sagal xadara bi rek taxaw xadara bi rek nee na loolu rek mooy suñu mission nee na wutu nu turde wutu nu bës waaye taxaw rek xadara Seydi Hadj Malick xaw xadara bi rek nee nag amuñu lu dul xadara Seydi Hadj Malick te dañoo judd fekk suñuy wayjur di ko taxawal nag kon ñun fii ñu taxaw day wane ni la mag ña nekke woon démb mooy dëgg ah ñun nag mission rek lañuy ñuy àggale si mission boobu nag yàlla buñ ci yëg sunu bopp amin yaa rabbi yàlla nañu yàlla may kartan ak xéewal yu yaatu ba mu gën a yaatu waaye li ma mën a wax daal mooy Tiwaawan Aziz Ndiaye na nga xam ni ñëpp sant nañ la nee na Tijaan ku dul sax sant na la ku dul taalibe sax sant na la kon Aziz Ndiaye Ablaye Ndiaye ngal gu ne yàlla na la yàlla taxaw nee li ñu boole nag nee nit ñi xamuñu ko de ndax sama wayjur Baye ngal gu Ndiaye la woon ak sa wayjur Baye Alé Ndiaye nee maa ngi seede démb rek Paale Ndiaye dama wax moom ñeenti fan. lañ ci teg mu gëm ab barzaq nee na wallahi azim nee na moom bàyyi la insisté na sax ba jaar ci ñang sàmb ni waxal Ablaye Ndiaye maa ngi koy woo te bi mu may woo nee na benn poste de sante bu bàyyi àll tabaxoon ci seen dëkk fii village bi nee na ba mu boole ma ak ICB femme bi fa ne wax ma yéene bu bàyyi am ci poste de santé bi nee na loolu Aziz ñun ñaar war nañ ko mën a àggale nag ndax jafewul nag ndax fexe ba ñooñu fa nekk état bi reconnaître leen nag jël leen en charge nee na loolu rek moo doon sa yéene bàyyi nee na beneen bi pa ale la woon pa adija ak sama waajur baay ngaal ne sama taaw papa bu jigéen ñu jël ko may ko pa adija mu am ci taaw tuddee ko baay ala njaay sa baay paa Adja jël taawam bu jigéen may ko sama mag Cheikh Ndiaye kon bokk gi noonu rek la demee nit ñi nag mën nañoo bañ a xam lañu bokk waaye nii rek la mën a demee mënul demee neneen ndax way juri nii lañu ñu àndee woon rafetal ko ba tey jiitu ji nee na ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yeesal yërmande ci ñoom yàlla na leen yàlla xaare aljanna Abdou Aziz sa daal ne mi ngi lay wax ni kontaan na ci yow bég na lool ci yow nee na yàlla na yàlla yàggal teraanga ci sa loxo nee na yàlla boo ceem loo tële bisu gàmmu gi nag dama amoon yéene woo El Hadj Meng Diop mi woo Pa Moussa ni ko dafa am teraanga yu ma bëggoon ngeen yóbbulal ma ko Aziz Ndiaye nee rek pour remercier la rek lañ ci jublu woon dama ne woon El Hadj Mbengue dama commandé Aziz Ndiaye ay fruits xam naa dina bari ay gan nee na ma fay fruits yeeg yëpp malheureusement agsiwul bi bisu gàmmu gi ba bi El Hadj ngi ñëwee ma ne ko El nag dëgg-dëgg affaire bi dérangé na ma de yéene bi ma amoon daal lii dérangé na ma bi may ñëw nag mani naa def benn geste rek bu symbolique pour wan ni sama xol sedd na ci yow mooy lii ma indi jiga sil ma di ay teraanga di ay tusi nee na xem naa ko de Aziz ndax yow mérito nga lu ëpp lii nee na pour jox la ko rek mu nekk rek loo xam ni suñu diggante la man ak yow ne maa ngi sant ñëpp ne di gërëm El Hadj Mbengue jóop ak Pa Moussa ci seen taxawaay ak seen rafetal ci suñu diggante ñun ñaar ne bi may ñëw nag maa ngi ànd ak sama rakku bopp Omar Diop ñu bokk ndey ak baay ànd ak sama ndijaay muy Mbaye Samb Cissé ànd ak sama jarbaat di Sidi Baara ànd ak Abdou Sall muy sama coordonnateur mouvement ànd ak Mame Gouda Taxa muy adjoint au maire ànd ak Baye Modou Gueye muy kenn ci ñun nee na bég nag fekk fi Abdou Aziz Mbaye ndax daaw jataay bii la amee woon ci sama kër lañ ko amee woon kon naal ñi ngi Ablaye Ndiaye ngaal gu ne ñi ngi santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekk ak at yu bari nee na di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah waaw waaw dañ koy compter kay dañ koy fësal ngeen waa Tiwaawan ndax merci kese kese kese neex na nag waaye merci daam lu muy àndal comme suñuy merci la ñu yor Abdoulaye Ndiaye ngal gu defal nu teraanga gi defal nga ko Seydil Hadji Malick si defal nga ko Serigne kër si defal nga ko Serigne Abdoul Aziz seen waaja waaye defal nga ko koo xamante ni ni nga ko fonke man xam naa ko Pape Moussa xam na ko bay Modou duggee xam na ko bi nu ubbee valise bi sànq Abdoulaye Aziz Abdoul Aziz waa addina yi di si yëpp fu ko fu ko Ablaay jëlee mais barke alxuraan bu ko mënoon def conteneur dañ koy def ndax nga def ndax booy jëfal Seydi Hadj Malick doo ci am foo ci taxaw doo ci am foo ci yem ngoogu Jesner joxel fee. Njaabi ana Njaabi. ñaari 10 mètres Jesner. a ngi noonu. ci jóge ci Ablaye Ndiangal ku dem ci frère am Abdou Aziz Alé Ndiaye. ñeenti mbubb ngi noonu. waaw demal waaw ba mu dem rek garaawul amul benn problème aca ñeenta ngoog alaaj continuer juróom a ngi waaw waaw juróom benn laa <laughs> ilaha juróom ñaari mbubb jesneer ay 10 mètres la ci Aziz juróom ñett kenn façon bi kenn xamul bon façon tisi la juróom ñeenta ngi fukki bubu fukki fukki fukki fukki cent mètres mbasin yoo xam ni yii Getzner la yii vol suisse la yii borodé la yooyu la Ablaye Ndiaye ngal gu indi jox ko Aziz Ala Ndiaye frère am mbokkam xaritam xam naa ni may def rek mooy dañuy dem ci Aziz Alaaji ndax am damaa bëgg ci jamono bi mu kontaanee nu bàyyi ko mu wax ci jamono bi mu bégee laa bëgg mu